bismillahi irrahmani irrahim an anas bni malikin radiallahu anhu an ilnabiyi sala allahu alayhi wasallama qaal jëlee nañ ci suñu sang anas bnu malik yal na yàlla gërëm ko mu ne sayiduna wa mawlaana rasulullahi sala allahu alayhi wasallama wax na ne taqabbalu li sittan ataqabbal lakum bil jannati warlul leen ma juróom benn ma warlul leen aljanna qaalu maa hiya ñu ne ko yow ki yàlla yewal yooyu yana qaal ida xaddatha ahadukum fala yakdib mu ne bu kenn ci yéen di waxtaan bu mu fenn wa ida waada fala yuxlif ku ci dëlee bu mu wuutee dëhalam wa ida tumina fala yaxun kuñ ci hóoloo bu mu huruj wa guddu absaarakum sëggal leen gëmmu leen seeni gis ba du ngeen ci xollu xaraam wa kufu aydiyakum fekk leen seeni yoxo waxfadu furujakum wattu leen seen pëy juróom benn yi la yonentu sallallahu alayhi wax ne nañ ko ko warlul mu warlul ñu aljanna te suñ làmmee ñi ba duñ wax lu dul dëgg fexe ba luñ diggee ñu respecté ko promesse bu ñu def buñ ko xuutee buñ ñu hóoloo buñ xuruj buñ wor yonent dana wax ci beneen hadis ne jikko bu ne mën naa ne ci ab jullit ba mu des xuruj ak fen mu ne yi tamit suñuy bët ñu gëmm ko ba duñ ca xool luñ ca warta xool ñuy yoxo ñu fekk ko ba duñ ca téye luñ ca warta téye duñ ca laal luñ ca warta laal ñu pays ñu wëttu ko ba duñ ko dugal fuñ ko warta dugal yal nañu yàlla dimbale ci juróom benn yooyu te may ñu aljanna ñun ñëpp yaa rabbi ci lu dul xisaab ak ci lu dul mbugal hadis ji Abu Yaala moo ko solo ci majmau zawaid hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama